daje fi ci suba si ci njitalu sous-préfet way euh inspecteur de l'éducation ak formation bu way fekkee ko ak directeur d'école yi ak délégué de quartier yi imam yi euh bàjjenu gox yi groupement féminin yi ak ay xalé donc ñu ñëw fekkee ko ndax école bi dafa xam ngeen ne école bi dafa yàq woon nawet bi dafa ñëw yàq ko nde ñun maire bi suñu programme bolé wuñ ci won école Adolphe Diagne ñu ngi doon euh, xalaat école UNESCO 3 ndax foofu dafa jege géej gi mu yàqu complètement amul mur de clôture classe ya boo duggee ci biir toiture ba day fecc donc ñun foofu lañ defoon suñu priorité ak Seydou Nourou Tall mi nga xam ne euh, muru clôture ba mu ngay bëgg a daanu ak euh, unité 4 nga xam ne fenêtre ak bunt amatu fa donc yooyu ma nekkoon suñu programme waaye bi ndawet bi ñëwee yàq fii ñu jaaxle lool ndax xam ngeen mairie du la neex rek jóg def da ngay defar sa programme boo defaree sa programme def ko ci sa plan de passation de marché loolu rek nga mun a def munoo def leneen donc ci biir loolu ñu jaaxle bi ñu jaaxlee nag ñu am partenaire boo xam ne naam sama doom la mais suñu partenaire la parce que ay at ci ginnaaw moo ñu fi indiloon euh, conteneur yu 40 pieds bu def ay lalax ay euh, euh, nu ñu koy waxee déambuleur ay lu nekk daal am na ci biir. ba moo ñu permettre ñu équiper suñu poste de santé yi golf yëpp moo ñu permettre golf bi mat am maternité moo ko équiper boo gisee am na salle bu ñu tuddee salle Aïda Sow Diawara équipement ba ma fa def moo tax ñu tuddee ma ko donc loolu euh, Roi Baudouin tey am na couveuse boobu moo ko fa joxe euh, district am na chaise dentaire moo ko fa joxe donc mu nekk koo xam daf ñu yàgg dimbale mais musul am coow musul am bruit parce que daf ko def rek pour dimbale yaayam moo tax musul bëgg sax feeñ bu ñu daan def euh, réception bi sax daawul ñëw donc nous wax ko ne ko ren loo ñu problème bi ñu wax ko mu ñu ak ay ya man dama premier adjoint wax ak ak photo école yi d'accord bi ñu d'accord nañu conseil municipal conseil municipal gëstu ko ci préfet percepteur ñu d'accord ñu voté à l'unanimité ba ñu paree ñu yónnee ko sous préfecture mu defal ñu arrêté wane ne d' accord nañ ci ci lañ ko sog a yóbbu ministère de finance donc lépp dafa jaar si yoon ci la ñu soog a ñëwee def boo gisee école yooyu ma leen waxee ne mooy suñu programme pareegul lenteur administrative parce que def nañu euh, lancé nañu marché bi réunion nañu tànn nañu ki ko war a defar léegi fokk foog këyit dem ñoo ñu signé ko foog këyit yi dem ñoo ñu signé ko mu soog a ñëw fii percepteur soog ko fay percepteur nag nee na ma àjjuma bi passé fay na ko kon liggéey yooyu dina commencé léegi damay bañ directeur yooyu nag ne ah ñun de ñoo jëkk a wax te ñi dañ jëkk a defaral loolu sunu liggéey la donc sunu liggéey dafa yéex ndax dafa am fu muy war a jaar bu de loolu percepti ko di ko fay bii nag dañu ko may sunu dërëm demu ci ki ñu may nag moo ñëw defar ba mu defaree ba mu baax mu jox ñu caabi ne li ma defar ngoo kon ñu ngi koy gërëm di ko sant vraiment kontaan ci liggéey bi directeur bi kontaan directeur yi kontaan nañu inspecteur kontaan na population yi fi nekk kontaan ndax yéen ñëpp gis ngeen ko jël ngeen biir classe yi xam ngeen ne defar nañ ko kon loolu ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla rek bailleur bi bañ euh, teggi loxoom ndax wax yu bare milieu politique la ñu nekk élection ngi ñëw kon fa ku ne attaque waaye man de jigéen daal bëgg naa bu fi fiy jógee daal ñu ne ay la yoon moo fi def lii moo fi def li moo tax may xeex pour projet yi dox loolu bu ñu ko waxee daf may reetaan loo parce que littoral bi euh, defe naa ne zone classée la parce que ministère de l'environnement moo ko am ay tool la fa nekkoon ndax yëpp donc euh, gis ngeen ne mu ngi am ay kër yuy jóg kër yooyu di jóg maire joxewu si benn maire xamul sax seeni borom euh, bi nga xamee ne ci base de vie bi gis nañ fa ay born filmer ko dugal ko man fekk na maa ngi bitim réew mais dama téléphoné euh, préfet ci boppam ne ko coow loolu may dégg ci suuf si foofu lan la mu ne ma maa ngi yónni naa descos pour ñu xool lan la après laa dégg na ñooñu ñu am kayit la fu ñu jëlee kayit xaw ma li wóor daal mooy man ku ñëw ci man nag demande d'autorisation de construire bu sa kayit jaaree ci yoon dama koy signé mais joxewu ma fa benn mètre carré nee nañ ma lu tax sama doom am fa lu tax racine ba am fa ñooñu ku ne 150 mètre carré la fa am te lu ëpp 157 maison mu nga fa lu tax ñu seppi ñaar ñooñu rek dama laaj ñaar tax ñu joxuma fa kenn terrain parce que aw ma ci benn pouvoir bés bu ñu ko déclassé nag boobaa lay am pouvoir ku ñëw ne maire joxe na boobaa ngeen ñëw laaj ma lu tax ngeen joxe mais lii nga xam ne aw ma ci benn pouvoir lu demee xëy rek gis kër gu taxaw borom dina ma bind ne dafa bëgg autorisation balaa ma koy signé damay laajte dossier yëpp mu wóor ma ne kii jaar na en règle ma soog ko signé donc vraiment lu ñu ma fa tooñ rek politique la rek mais lu ñu ma fa tudd rek tooñ nañ ma parce que joxew ma fa benn mètre carré waaw xam nga dafa waxoon ne ñun dañuy ñaan dañu ñaan dimbal pour 14 écoles yëpp bien que ñun ñu ngi defar 3 yi mais xam nga ñoom seen defar bi dafa am maanaa donc ñu ngi ñaan yàlla école yépp ñu defar ko benn par benn ba fileex école di tijji daal en tout cas école yépp baax man mi bii baax euh, donc man la madame Ndiaye directrice Adolphe Diagne A damay wax ci sama turu naataangoo yépp enseignant yeeg euh, beneen directrice bi donc ñun kontaan rek la ñu def ndax euh, école bi amoon na ay yàqu-yàqu yi nga xam ne daan na gàllantoo seen liggéey sax ba be. befeemu daaw bi mënuñu ko woon a organiser fii fii centre bu mag la mais ndax classe yu yàqu toiture bi yëpp daf doon senn maire bi nag biñ ko ko waxee photo à l'appui bi mu amee programme bi rek daf ñu ko indil réflexionné ko donc c'est venu à son ñu ngi koy jaajëfal di ko remercier bu baax te aussi di leen xamal ne du lii rek la fi la fi def chaque fois que ñu soxla ko dara manqué fi suñ ko woowee rek mu mu mu ñëw te encore waxuma ko ci français dama koy wax te yàlla rek moo ma tiim mooy maire bi nga xam ne foo ko woo mu wuyu la même su nekkee ci bërëb bi nga xam ne ne sax mënul gis euh, sa téléphone su eggee ba gis euh, sa appel daf lay woowaat waaw yëpp a jag mënuñu wax ne lépp a jag à cent pour cent parce que table banc yi réfection table banc yi desoon na ndax moom mi ci boppam xamaloon nañ ko dañoo am déficit table banc wante buubaak may waxal ne dinañ ko liggéey li ñu nekk ci biir année scolaire bi mënuñu di leen génne di defar xale yi du duñu am fuñ toog donc ak mur bi war nañ ci def grillage comme ne pour tere xale yi di tëb di génn defe naa yooyu rek te yooyu ay détail la tere wu ñoo liggéey daal mm-hmm. waa BFM bi loolu laa waxoon daaw ren moom dinañ ko mën a organiser ndax daaw classe yu yàqu moo taxoon ndax élèves yi mënuñu di composé muy senn di taw seen kaw donc dañ ko mujje woon a yóbbu feneen mais ren incha allah dinañ ko ci mën a